أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقر أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جمع بلال الحبشي وأبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي تحت راية واحدة وهي راية أن لا إله إلا الله أما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mbokk yi ginnaaw bi ñu santee buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu di leen nuyu nuyu islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw loolu ñu di leen ndokkeel ci at mu bees mi atum jullit ñi nag laa wax ndax ñaari mbir yi dafa tombe jullit ñi dañuy génn seen at tombeek ñeneen ñi di génn seen at moo tax kuy ndokkeel na nga préciser kon maa ngi leen di ndokkeel ci atum jullit ñi di ñaan buur bi subhanahu wa taala bépp fakkastal boo xamante ne bii defoon nañ ko ci at mi weesu mu jéggal ñu ko di ko ñaan it at mii nga xamante ne bii ñu ngi ciy dugg yal nañu ci gën a dëgëral suñu tànk ci yoon bi gën ñoo musal ci seytaane gën ñoo jàppale ba ñu nekk ay dëggi-dëggi jullit comme ni mu ko bëggee moom bir bi subhanahu wa taala ginnaaw loolu comme ni ko mbokk mi waxee thème bi nga xamante ne bii moom la ñuy waxtaanee insha allah muy shaxsiyatul mar'a al muslima muy personnalité jigéenu jullit bi mu nekk thème boo xamante ne bii thème bu ñu war a waxtaanee la ci jamono ju ne rawatina nag ci jamono ji nga xamante ne bii man de tiit naa ci jàq naa ci te am naa ci gàcca ndax jigéen ji nga xamante ne bii dafa naan dafay askanoo ci lislaam wàcc bi mu wàcc ak sori bi mu sori ci place bu kawe bu leer bi nga xamante ne bii foofu la ko buur bi subhanahu wa taala namaloon mu nekk ko te dara doxul ak digganteem ak place boobu mu àgg fa mu tegu fa lu dul mu fexee boo ngir xam personnalité bi nga xamante ne bii moom la ko buur bi subhanahu wa taala bëggal wàccee ko ci alquran xamal ko ne nii laa bëgg nga mel ko waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw leeralal ko ni yàlla bëgg mu mel ko ci sunnaam bu tedd boobu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk personnalité boo xam ne personnalité bu kawe la bu lay ràññee yow jigéenu jullit bi ci say yëg-yëg ci say xalaat ci sa comportement ak ci sa jëflante mu nekk ay mbir yoo xamante ne bii moom la la buur bi subhanahu wa taala nammal moom la la buur bi subhanahu wa taala bëggal nga jàpp ko def ko comme diine nga màtt ko ba mu dëgër ak say dëgëj te tey place boobu nga xamante ne bii moom la buur bi subhanahu wa taala bëgg jigéenu jullit bi tegu fa place la boo xamante ne bii wala mbir la moo xamante ne bii mbir bu am solo la lool lool lool lool ndax lan ci dundu doomu aadama yépp nag la am solo ndax jigéen jeexital bu mag bi nga xamante ne bii mi ngi koy def ci génération yi ndax jigéen moom mooy defar jàmbaar yi ndax jigéen moom mooy ji ngëneel yi ci doomu aadama yépp waaye jigéen mooy dëgëral jikko yu rafet yi jigéen mooy soppi dundu doomu aadama yi def ko mbëggeel ak ñeewante ak yërëmante jigéen moom mooy feesal biir kër yi sécurité ak nooflaay ak daluwaay ak dëkkuwaay kon lii moo tax jigéen war a xam moom mooy kan te nag jigéen ñi li ñuy bëri bëri bëri bëri taxawaay bi nga xamante ne bii moom la yàlla bëgg société yi mel ko société yi melokaay bi nga xamante ne bii melokaan bi nga xamante ne bii moom lañ war a mel amul benn jigéen boo xamante ne bii moo ko mën a def ci ñoom ku dul jigéenu jullit jigéenu jullit rek moom moo mën a defar société yi ba mu jub ba mu baax ndax lan ndax moom mooy ki nga xamante ne bii buur bi subhanahu wa taala daf ko préparé ngir mu mën a tasaare jikko yu rafet yi ngir mu mën a saxal jikko yu baax yi ci àdduna bi nga xamante ne bii tey rawatina ci jamono ji nga xamante ne bii tey jigéen ñi dañ ci dëddu seen diine dañ ci wan ginnaaw buur bi subhanahu wa taala dëgmal àdduna daray teelu leen lu dul matériel daray teelu leen lu dul dund comme ñi jaahiliya yi daan dundee ñu nekk kon ci benn société boo xam ne wala benn dundin boo xamante ne bii dafa gumbaal société yi ba ñu réer wan ginnaaw li nga xamante ne bii moom mooy njubu buur bi tabaraka wa taala te it jigéenu jullit bi mënta am li nga xamante ne bii moom lañ namm ci moom muy defar li nga xamante ne bii moom mooy société yi lu dul ne dafa xam ak tamit dafa dëgmal si ci li nga xamante ne bii dafa exploité li nga xamante ne bi moom mooy xalaat yu rafet ak jikko yu rafet yi nga xamante ne bi moom la ko yàlla defar moom la ko yàlla buur bi subhanahu wa taala sant ne na ko mel ak mu defaraat personnalité bi nga xamante ne bi moom la yàlla bëgg ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg mu mel ko muy personnalité boo xamante ne bi moo ko wuutale moo ko tàqale ak yeneen jigéen yi ci des te bu ñu xoolee alquran mbokk yi texte yi nga xamante ne bi aay yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñëw ci alquranul karim ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy gis yërmande buur bi subhanahu wa taala li muy yaatu yaatu yaatu li muy bëri bëri bëri bëri dañuy gis ñu gën a fësee ci ki nga xamante ne bi moom mooy jigéen rawatina ki nga xamante ne bi moom mooy jigéenu jullit ndax lan yaakaar naa ne loolu ñu bëri ci ñun umpule wuñu tey buñ la laajoon lan moo tax yàlla am yërmande bu mag bi ci jigéen lan moo tax yàlla romb fi ñëpp ñëw ne dafa bëgg a yëkkati jigéen teg ko ci yenn place yu kawe yi loolu umpule wuñu ndax ku nekk ci ñun wala boog ñu bari ci ñun xam nañ ne jigéen démb am na fu mu nekkoon ci doyadal ci néew doole ci torox ak topp góor waaye foofu buur bi subhanahu wa taala moo ko faroon ci jaarale ko ci diinal islam ndax yàlla moom mi ngi fi woon musu fee jóg te du fi jóg waaye lislaam nekku fi woon mu yàlla nekkoon na fi mu nekk ci yeneen diine di fa torox nekk ci yeneen aada di fa torox nekk ci yeneen civilisation di fa torox mais ci diine lislaam ci la ko buur bi subhanahu wa taala roccee ci torox tànge yooyu daat koy jox liberté am daggal ko mbuumi jaam mboole mbuumi jaam yi nga xamante ne bii tënkoon na ko moom jigéen ci suul ci toroxal ci doyadal ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu waaye ndax jëlee na ko foofu rek yam ci déedéet xam nga nit ki moom doy na rek nga fekk ñu di ko mbugal wala boog doy na rek nga fekk ñu di ko dóor nga àtte ko ba ka ko doon dóor ba ko nga ba ko mu dem waaye nag yàlla daf ñoo fekk ñu di ñu dóor mu àtte ñu bañu bañu mu wëlbatiku nabb nabbee ñu nax ñu yëkkati ñu ba ci place bu kay mu teg ñu fa kon mu nekk loo xamante ne bii lu ñu war a santee buur bi subhanahu wa taala la kon yàlla wëlbatiku na ginnaaw ci doyadal yooyu mu ñu jëlee yëkkati ñu ñun jigéen rawatina jigéenu jullit daat lay teg ci place bu kawe boo xamante ne bii amul benn loxo boo fa tegoo bu fa mën a àgg ba jëlee la fa ndeg tegu nga fa utal la ne la ku am indépendance nga ci sa bopp ni góor ñi amee droit wéyal seeni xalaat wala fesal seeni xalaat ci société bi yow tamit noonu nga amee droit boobu waaye tamit nit góor ñi amee droit ci seen alal bu fekkee yow ku jigéen ki borom alal nga noonu nga amee droit ci sa alal ak yeneen ak yeneen ak yeneen mbir yoo xamante ne bii tey démb xañoon nañ la ko lislaam ñëw daat lay xamal ne yow mii kat am nga ci àq daat lay xamal ne yow jigéen yow ku góor ki yéen a yem waaye nag yéen a yem ci karaamal insaaniya tedd nga doomu aadama ni góor war a teddee noonu la jigéen war a teddee takaalif sharciya maanaam mbir yi nga mbir yi nga xamante ne bi ay mbiru sharia la jaamu yàlla yi li yàlla di araamal ak li yàlla di tere ni mu ko gàllee ci loosu góor noonu la ko wëlbatikoo teg la ko ci yoos ci yow ci sa loos yow jigéenu jullit bi xamal leen kat yéen ñaar ñëpp yéen a ci yam bu ngeen ko defee muy lu ma digle yéen a cay yem ci tuyaaba ja waaye tamit su ngeen ko defee muy lu ma tere mbugal ma yéen a cay bokk yam moo tax alquran naan man amila minkum min amalin man amila amalan salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min charte benn charte rek la ci yàlla indi moo xam góor nga moo xam jigéen nga l'essentiel ba nga koy def na nga nekk jullit wa huwa mu'min yàlla nee na kooku man yàlla dinaa la fay fay bu rafet ci àdduna ak ci alaxira kon ak yeneen ak yeneen aaya yoo xamante ne bii bu ñëwee ci alquran dañ fay fekk yàlla di fa yemale góor ak jigéen comme aaya bi nga xamante ne bii ñëw na ci ahzab inna al muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qanitina wal qanitat ila axiri l aaya ba fi yàlla waxee naan wa zakirina allaha kasiran wa zakirat aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima ñi nga xamante ne bii ay jullit yu góor lañ jullit yu jigéen way gëm ñu góor yi way gëm ñu jigéen ñi ñiy woor woorkat yi ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñi ragal yàlla muñkat yi ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ba ci ñu tudd yàlla ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi kon loolu rek andil na la luy wane ne yow ci àq ak yelleef ak wareef yow doomu a yow góor gi yéen a fa bokk yam ci kanamu buur bi subhanahu wa taala te mbokk yi ngëneelu jigé ngëneelu lislaam ci ki nga xamante ne bi moom mooy jigéen yamul ne rek ne daf ko dindi ci sànku googu mu naroon a sànku yamul ne daf koo dindi ci place bu metti boobu mu nekkoon waaye dafa wëlbatikuwaat tëggaat ko defaraatal ko personnalité am formel ko benn personnalité boo xamante ne bi daf koy wan ne yow jigéenu jullit bi nii nga war a mel yow jigéenu jullit bi nii nga war a mel ak sa bopp yow kese nii nga war a mel ak sa famille nii nga war a mel ak société bi li nga xamante ne bi def na ko noo xamante ne bi day nekk doomu aadama boo xamante ne bi bu yelloo la kuutlaay bi nga xamante ne bi moo tax buur bi subhanahu wa taala wàccee doomu aadama yi ci kaw suuf ndax keroog yàlla bi mu ne day bind aadama li mu waxoon malaaka yi mooy inni jaailun fil ardi xalifa yàlla bi muy bind aadama dafa ne woon malaaka yi man de damay def ci kaw suuf ku ma fay wuutu ku ma fay wuutu bi mu bindee aadama la bind bu fekkonte ne bi yàlla kutlaay boobu góor kese la bëggoon mu nekk ko du bind xawaa mun na bàyyi noonu aadama yàlla nu muy def ba indiwaat yeneen góor tawu ko yu mel ne aadama ñoom ñëpp ñu nekk ci kaw suuf di ay góor kese tawu ko waaye xam na ne kutlaay boobu du nekk góor kese waaye day nekk góor ak jigéen léegi nag yow pour nga def sa rôle boobu ngir nga mën a wuutu buur bi subhanahu wa taala ci kaw suuf moo tax yàlla bàyyiwu la noonu kese ngay dem ndax kon loolu kat doo ko mën a matale waaye daf la tëggal benn personnalité boo xamante ne bii daf loo xam ne pour nga mat xil xalifa boobu kat nii nga war a mel. kon l'islam naka la formé waat personnalité jigéenu jullit bi naka la. ka tëggeewaat ba mu nekk benn place bu kawe boo xamante ne bii jigéen mosu koo am ci àdduna ci benn diine lu dul ci diine bi nga xamante ne bii moom mooy islaam kon mu nekk ay mbir yoo xamante ne bii ay mbir yu bëree bëree bëri la yoo xam ne soo ko boolee dañ naan la lii mooy melokaan bi nga xamante ne bii moom nga war a mel yow jigéenu jullit bi mu nekk ay mbir yu bëri yoo xamante ne bii daanikaan bu ñu xoolee benn bu ci nekk rek doy na tomb ngir ñu waxtaanee ko ndax boo ñëwee ci shaxsiyatul mar al muslima mooy personnalité jigéenu jullit dañu la tegal ne la sa personnalité sa digganteeg sa borom sa personnalité sa digganteeg sa bopp sa personnalité sa diggante ak sa ñaari wayju sa diggante ak sa borom kër sa diggante ak say doom sa diggante ak say mbokk yi la jege say mbokk yi nga bokkal deret sa diggante ak say dëkkandoo ba ci sa diggante ak société bi bàyyiwul kenn dara ndànk par ndànk la la lislaam jëlal te yépp boo ñëwee rek di nga fa fekk aaya ci alquran wala xadis ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu lay waxal ne yow kat nii ngay mel pour nga mën a nekk jëmm ju taxaw joo xamante ne bii da ngay defar ci kaw suuf waaye doo doon lu fay yàq comme ni ko malaaka yi foogee woon ndax malaaka yi keroog bi leen yàlla waxee damay def ci kaw suuf ku may wuutu lan lañ ko wax atajal fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yàlla ndax yow da nga bëgg a def ci kaw suuf koo xamante ne bii daf fay yàq di fa tuur deret te ñun ñu ngi nii baax bay bëgg a dee fu ñu toll ñu ngi lay sàbbaal di la topp duñ la mooy mukk tey nag nga naan ñu fee wàcc doo ñu wàccee ci kaw suuf ñu wutu la fa nga wàccee fa ñoo xamante ne bii dañuy yàq ci kaw suuf waaye duñ fa defar dañ fay tuur deret yàlla ne leen man xam naa lu ngeen xamul kon ay mbir la yu la lislaam tegal ngir nga nekk yow musliha fil ardi la mufsida nga nekk kuy defar ci kaw suuf waaye doo nekk kuy yàq ci kaw suuf waaye ñu ne bu ñu bëggee wax waxandoo yépp yépp yépp duñu fi jóg ba tax na dañ ciy tànn mar al muslima maa rabbiha ak al mar al muslima maa nafsiha ñaari njëkk yi rek lañ jël sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa bopp ndax yaakaar naa ne ñaar yooyu daanikaam ñoom ñooy base bi su leeree rek lépp leer ndax boo xoolee sa digganteeg ñaari waajur presque day dem bay digg sa digganteeg sa borom ndax soo jàngee ci alquran da ngay gis ne yàlla toujours fu mu waxee ne na ngeen ma jaamu rek lu ciy teg na ngeen rafetal ci seen ñaari waajur kon munoo ne damay defar sama digganteeg sama borom bàyyi sama digganteeg samay ñaari waajur kon ñooy ñaar yooyu dañoo nekk daanikaam loo xamante ne bi dafa xaw a ëmbaale yi ci des buñ la ci waxalee dara wala boo ci déggee dara rek daanikaam daanikaam li ci des sa xel da koy xaw a mottali muy yeneen tomb yi ci des bi ci njëkk muy almar al muslima ma rabbiha sa personnalité yow jigéenu jullit bi ak sa borom naka la war a mel sa ban ban comportement nga war a am sa digganteeg sa borom mu nekk ay mbir yu bëree bëree bëri yoo xamante ne bi dafa war a dox sa digganteeg sa borom muy fesal sa personnalité bi ci ñëkk ñu ne la dangaa war a nekk mu'mina yaqiza danga war a nekk ku gëm waaye tamit ku yeewu ndax bokk na ci li nga xamante ne bii mooy gën a feeñal wala mooy gën a ràññee ki nga xamante ne bii mooy jigéenu jullit bi mooy gëm yàlla bu xóot bi nga xamante ne bii mi ngi koy gëm yàlla ak pas-pasam bu nga xamante ne bii pas-pasam bu dëgër lay doon pas-pas bu sell bu teey boo xamante ne bii raxul bokkaale raxul ay xuraafaat raxul ay njibar raxul dara léppam rek buur bi subhanahu wa taala la mu nekk koo xamante ne bii dafa gëm yàlla am yaqiin bu wér bu dëgër ne lépp lu nga xamante ne bii mooy dox ci kaw suuf rek ci kàttanu buur bi subhanahu wa taala la ak ci dogalam mu am yaqiin bu dëgër ne lépp lu dal doomu aadama bi moo xam bànneex la moo xam naqar la waaye yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal lépp lu dal doomu aadama bi rek comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee woon xale ba maa asaabaka lam yakun li yuxti ak wa maa axtaaka lam yakun li yusibak lépp lu la dal rek lu ba lu lu lu mënta woon a ñàkk la ngir mu dal la lu la waroon a dal la waaye lépp lu la dalul itim na nga xam ne lu la yàlla bindaloon la ngir ne du la dal kon yow jullit bu jigéen bi sa mbir yépp foofu nga ko war a wékk ndax loolu moom mooy firndeel sa gëm yàlla bu mat loolu moom mooy firndeel sa sa aju gi nga aju ci buur bi subhanahu wa taala sa wakkirlu gi ngay wakkirlu ci buur bi subhanahu wa taala mooy firndeel itim ne yow sa mbir yépp yaa ngi ko teg ci loxol buur bi subhanahu wa taala te mbir yooyu nga xamante ne bii kon moom nga teg ci loxol buur bi ci la la buur bi di dimbalee ba ëllëg mu daat lay gërëm ci bis boo xamante ne bii yaa ngi fii di liggéey ëllëg lañ la war a fay ci bis boobu te bis boobu ngay sàkku yàlla gërëm la ci moo taxoon nga gëm ko gëm bu dëgër bi moo taxoon amul ci dara loo wéeru moo taxoon amul ci dara loo sas ku dul buur bi subhanahu wa taala kon loolu nekk ay mbir yoo xamante ne bi yaa ngi koy jëf sa digganteeg sa borom ngir nga gis résultat yi ëllëg ngir nga gis fay bi ëllëg ci bés boo xamante ne bi day ñëw laa rayba fii comme ni ko yàlla di waxee qulillahu yuhyikum thumma yumiitukum thumma yajma'ukum ila yawmi alqiyamati laa rayba fii walakinna akthara annaasi laa ya'lamuun waxal ne yàlla moo leen di dundal yàlla moo leen di rey yàlla moo leen di dajale ci bés yowmal xiyaam muy bis boo xamante ne bi amul benn sikki sàkka dafay am waaye tey lu ëpp ci nit ñi dañoo réere bis boobu ñu ëpp ci nit ñi dañoo xamul bis boobu la fa nekk ci ay jafe-jafe la fa nekk ci ay naqar la fa nekk ci àjjana ju neex la fa nekk ci safara su metti ñu ëpp ci nit ñi tey dañoo réere loolu ba tax na seen gëm yàlla dañ koo fowee seen digganteeg seen borom dañ koo fowee ba tey buur bi subhanahu wa taala di wax naan afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun yéen doomu aadama yi ndax da ngeen a yaakaar ne man yàlla dama leen a bind ngir fo te da ngeen a yaakaar ne ëllëg yowmal xiyaam du ngeen dellusiwaat ci man ñu bëri ci ñun tey fàtte nañ yowmal xiyaam dañoo fàtte yowmal xiyaam bañ nañ ko sax dalay taxaw ak ay jullit ay doomu jullit yoo xamante ne bii tey dañuy taxaw di la wax naan la yàlla du bind du lakk ab jullit de bu taxaw naan la yàlla du bind du lakk yàlla du ma bind ba pare lakk ma bu fekkoon loolu la du ma bind te yàlla wax na ci alquran ne inna allaha shadidul iqab yàlla su la du woon lakk du la ko wax yàlla du waxantu màgg ku màgg ba doy ne yàlla nga ne ma moo ma bind ba pare ne ne damay def lu ma neex du ma lakk wala nga ne ah yàlla de ku bëri yërmande la yàlla yërmandeem yaatu na lool waaye nag am na yërmandeem boo xamante ne bii ñëpp ko bokk àdduna waaye yërmande alaxira dafa am ñu ko jagleel du n'importe qui moo ciy bokk kon nga góorgóorlu ba defaraat sa digganteeg sa boroom subhanahu wa taala ba mu dëgër te xam ne bis boobu dina ñëw yàlla dina la àtte te lu ndaw loo bàyyi rek buur bi su lu ndaw lu mu ndaw ndaw rek buur bi subhanahu wa taala du ko bàyyi dina la ko indi ëllëg yowmal xiyaam man fa may yaamal misqaala daratin xayran yara wa may yaamal misqaala daratin charran yara bis la boo xamante ne bii lépp loo fa def ci lu baax lu mu tuuti tuuti tuuti yàlla subhanahu wa taala nee na di nga ko gis lu mu rëy lu mu lu mu nekk ci lu bon tamit lu mu tuuti tuuti tuuti buur bi subhanahu wa taala nee na ëllëg di nga ko gis ëllëg yowmal xiyaam kon aaya yi ak yeneen aaya yu dul ñoom dinañ la tax nga gën a dëgmal ci sa boroom subhanahu wa taala nga topp ko dellu ci moom fexe koo sant bokk ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo koy jaamu bokk ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy sàkku ngërëmam ba ëllëg yowmal xiyaam nga mën a bokk ci gaa yi nga xamante ne bi buur bi subhanahu wa taala daf leen a gërëm yërëm leen dugal leen ci yërmande googu di aljana kon ginnaaw ba nga xamante ne bii waa dañ ne la da nga war a nekkoon mu'mina yaqiza ku yeewu nga gëm yàlla ba pare yeewu baatu yeewu bi lu mu ci doon parce que tey ñun ñi ñëpp ku ñu laajoon ba xam ku gëm yàlla nga wala gëmoo yàlla looy tontu suñ leen laajoon gëm ngeen yàlla wala gëmu leen yàlla lu ngeen di tontu gëm nañ yàlla. gëm nañ yàlla la ñuy tontu ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ay jullit lañ jàpp nañ ne gëm nañ yàlla mais gëm yàlla boobu ñu ci bëri ci ñun suñu gëm yàlla àndut ak muus àndut ak yeewu dañ jàpp ne nag gëm naa yàlla maa ngi julli weeru koor maa ngi koor su ma amoon fii léegi 2 millions bu déwénee dinaa préparé aji màkk loolu lañ jàppee suñu gëm yàlla fekk ne loolu kese xëy na du gëm du du du du muus du ñor gi nga xamante ni moom mooy nekk ci gëm yàlla comme ni ko yeneen bi waxee woon mu ne ku muus ku muus mooy ki nga xamante ne bi da nga wàccee sa bopp da ngay xeeb sa bopp xam ne yow mi kat doo dara waaye tamit nga jëfal li nga xamante ne bii mooy ginnaaw dee wa amila li ma baadal moom nga jëfal li nga xamante ne bii moom mooy ginnaaw dee kon yaa ngi julli te xalaatoo sa julli gi xalaatoo ci ne naa ko defee noo xamante ne bii kat ëllëg yàlla daf ma koy fay te bëgguma mu fayee ma ko noo xamante ne bii du neex maa ngi woor sama koor gi kat naa ko defee noo xamante ne bii ëllëg yàlla dina ma ci gërëm sama aj maaka bi wala sama muuraay bi naa ko defee noo xam ne ëllëg yàlla daf ma cay gërëm kon loolu moom mooy ñaw ak muus gi nga xamante ne bii moo nekk ci jaamu yàlla nga jaamu ko jaamu bu sell goo xamante ne bii dafay ànd ak sàkku ngërëmam bu ko defee bu ëllëgee nga mën a bokk ci gaa yi nga xamante ne bii buur bi subhanahu wa taala daf leen di gërëm beneen bi ci des sa digganteeg sa boroom mooy nga nekk di ko jaamu ibadatu rabbiha wala aabidatun li rabbiha ngay nekk kuy jaamu sa boroom ndax mun na am gëm nga yàlla mun nga wax ni tamit ah man de maa ngi jaamu yàlla ndax maa ngi julli maa ngi wóor mais loolu kese doyul ci jaamu yàlla jullit bi lépp looy def rek danga ko war a def jaamu yàlla ci naka nga koy defee jaamu yàlla mooy soo koy def nga yéene ci wala nga namu ci fayu buur bi subhanahu wa taala nga namu ci fay buur bi subhanahu wa taala kon loolu moom mooy tax sa lépp looy def rek sa sa dund àdduna nga namu ci fay buur bi subhanahu wa taala loolu moom moo lay def ngay nekk jaamukatu yàlla ci mbooleem mbir boo nekk ci sa mbiru dund yi te yow mi nga xamante ne bi jigéenu jullit nga bu gëm yàlla bu sa gëm yàlla dëggu dangay am dangay am dogu dogu dogu dogu bu kawe dangay am doguwaay bu kawe ndax dangay jàpp ne yàlla ni mu wékkee ci góor ñi ne nañ liggéey ëllëg mu fay leen noonu la ko defee ci jigéen ñi comme ni ñu ko waxee woon sànq ëllëg tamit mu fay leen yàlla ni mu tegee góor ñi ne leen liggéey leen noonu la waxee jigéen ñi ne leen liggéey leen li mu araamal ci góor ñi loolu la araamal ci jigéen ñi li mu farataal ci góor ñi loolu la farataal ci jigéen ñi kon yow góor ñi yéen a bokk foofu kon sa ngëm yàlla gu dëgg googu fi mu lay poussé mooy nga xam loolu nga yëg ko te fexe day def sa kemtalaay kàttan lépp lu nga xamante ne bi farata la ci lislaam nga di ko matal lépp lu nga xamante ne bi ponk ca ponk la ci lislaam nga di ko matal parce que tey bëri na ci ñun ñu jàpp ne man daal jullit laa rek doy na fekk sa ponk lislaam yi dara matu ci te ponk lislaam yooyu moom moo lay def islaam dañuy xool baatu islam ak baatu muslim ni ñu ni ñu àndee ñoom ñaar léegi yow sa islam googu mat mooy tax nga nekk muslim te islam dañ ne la juróomi ponk la juróomi ponk yooyu il faut nga matal ko pour nga mën a nekk muslim waaye nga ñëw ne man daal dinaa ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah loolu rek doy na jullit laa julli bokkul woor bokkul nga bëgg ne jullit nga nax nga sa bopp ponk islam yi il faut mu mat pour nga nekk jullit il faut mu mat kon matal boobu nga koy matal jaamu buur bi subhanahu wa taala la moom ci joxe ko joxe bi nga xamante ne bii moom la ko yàlla santaane doo ko jàppee say catu baaraam heure bu la neex nga koy def heure bu la neex nga koy bàyyi buñ ne laa julli nga ne ah l'essentiel daal dinaa julli ñu noodu tisbaar nga toog ci ataaya bi ak ci film bi ba tàkkusaan nga jug jël sa temps sangu ba set defaru ba jekk door wax ne nag yaa ngi julli tisbaar boole koog tàkkusaan l'essentiel daal naa julli naa julli bu doon l'essentiel naa julli kon yàlla danaa ne leen bi soo demee nga ne jullit ñi bis bu nekk nañ ci julli juróomi yoon rek bu ko defee soo xëyee nga noppal sa bopp julli sa juróomi julli yi toog jàpp sa ñaamba waaye lan moo tax buur bi subhanahu wa taala def ko ay waxtu topp boobu nga koy topp ci waxtu yooyu nga fekk la sa digg bànneexu waxtaan sa digg bànneexu àdduna nga dégg noddukat bi ne allahu akbar nga bàyyi lépp loo loo loo doon def ne ko kat attaaye ji looy neex neex neex yàllaa la gën a neex loo màgg màgg màgg yàllaa la gën a màgg liggéey bi lu mu baax baax baax yàllaa la gën a baax nekk fa ñuk daal di jug dem wuy ji sa borom subhanahu wa taala loolu mooy dëggal jaamu gi nga xamante ne bii moom ngay jaamoo yàlla moo tax yàlla jël jaam jaamu yépp mu bu ci nekk mu defal ko période weer koor bu la neexoon nag mu ne waxal jullit ñi at bu nekk nañ ci woor weer bu ko defee yow yaay xool rek xool weer boo xamante ne bii neex na la rek war a ngay woor par jour par jour ba mat 30 jours nga ne l'essentiel 30 jours la bu nekk yàlla daf ko utal kon nekkul ne rek lu ñu neex dañ ko dañ ko war a jàppee comme ni ñu neexee ci ay jaamu yàlla ba pare bëgg a teg na ñun suñu bopp ñu ngi jaamu yàlla ñun kon bu boobaa jaamu ñu yàlla ñu ngi nax suñu bopp. ba tey bokk na sa digganteeg sa boroom nga yëg sa responsabilité kanamu buur bi subhanahu wa taala ndax. ni nga amee wala ni góor ñi amee ay responsabilité surtout ci biir famille yi ci biir kër yi yow jigéen noonu nga amee responsabilité wala sax mun nañ ne responsabilité bu ko raw nga am ndax li ngay xam ci kër gi góor ki du ko xam li ngay xamal xale yi ku góor ki du leen ko xamal xale yi li ñuy ñëw di waxtaan ak seen yaay problème yi ñu koy wax wala yenn mbir yi nga xamante ne bii ñemewuñ ko wax seen papa te di ko wax seen yaay yooyu yow yaa koy xam kon yow sax mën nañu ci biir kër gi surtout sa responsabilité moom moo fi ëpp responsabilité góor kon responsabilité boobu da nga ko war a taxawee ba mat sëkk te xam ne ëllëg yow mal xiyaam buur bi subhanahu wa taala dina la ko laaj ndax yonente alayhi salaatu wasalaam moo ni ala kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyati fal imaamu ala nnaasi raacin wa huwa mas'uulun an ra'iyyatihi wa rajulu raacin ala ahli baytihi wa huwa mas'uulun an ra'iyyatihi wal mar'atu raaciyyatun ala bayti zawjihaa wa waladihi wa hiya mas'uulatun anhum wa abdu rajuli raacin ala maali sayyidihi wa huwa mas'uulun anhu ala kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi yonent bi mu ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen yéen ñëpp ay responsable ngeen te ëllëg responsabilité bi ngeen gàddu woon yàlla subhanahu wa taala dina leen ko laaj mu tàmbalee rek ci imaam ki nga xamante ne bii moom moo jiitu nit ñi imaam nag bu ñu ko waxee nekkul jàkka ja kese képp ku nga xamante ne bi yow yaa jiite tey amira bi jiite sous section bi imaam la fi ëllëg bu demee yow ma xiyaam yàlla dina ko laaj sa sous section ba nga jiite woon imaam bi ci jàkka ji tamit responsable la ci chef de quartier bi dafay dugg ci imam responsable la ba ci président de la république ëllëg bu demee dina taxaw ci kanam buur bi subhanahu wa taala yàlla ne ko peuple bi nga xamante ne bii dama laa jiitaloo ci ñoom nga yor seen responsabilité naka nga leen doon sàmmee kon imam mooy képp nga xamante ne bii dafa jiite aw nit rek yow sàmm nga ci ñooñu nga jiite ëllëg yow ma xiyaam buur bi subhanahu wa taala dina la laaj mu ne tamit ku góor ki sàmm la ci biir këram yàlla dina ko laaj sa soxna si naka nga nekkee woon ak moom njaboot gi naka nga nekkee woon ak ñoom mu ne yow jigéen gi yow tamit sàmm nga ci biir kër bi sàmm nga sa jëkkër sàmm nga ci say doom ëllëg yow ma xiyaam buur bi subhanahu wa taala dina la laaj naka nga doxalee woon diggante boobu mu ne ba ci jaam bi sax ba ci jaam bi sax ab sàmm la ëllëg yow man xiyaam yàlla dina ko laaj naka la doon sàmmee li nga xamante ne bi moom mooy alalu sangam kon loolu daf ñuy wan ne responsabilité ci l'islam ñëpp lay engagé nekkul ne benn groupe rek wala benn nit rek lay engagé di tàmbalee ci président de la république ba ci ki nga xamante ne bii moom mooy jaam bi sax ci société bi yàlla ëllëg yow man xiyaam dina ko laaj li nga xamante ne bii loolu la doon sàmm kon nga war a def kon sa yitte nga war a def sa yitte yëpp muy ne ko yow ëllëg yow mal xiyaam boo demee kat bu la yàlla naan la sa kër borom kër naka nga fa nekkee woon say njaboot naka nga fa nekkee woon bu boobaa doo nak nakal sa digganteeg sa borom ban responsabilité nga ci jëloon bu boobaa doo fa nekk di nak nakal beneen bu ñeenteel bi ci ba tey jigéenu jullit bi digganteem ak boromam mooy yitteem bu njëkk bu mu war a am yitte ci àdduna mooy ëllëg buur bi subhanahu wa taala gërëm ko mooy ëllëg buur bi subhanahu wa taala gërëm la kon tomb bu ñeenteel bi ci diggante jigéenu jullit bi ak boroomam ba tey mooy nga def sa yitte yépp muy buur bi subhanahu wa taala gërëm la ndax jullit bi lépp lu mu war a def rek lim ci war a jiital mooy naka buur bi subhanahu wa taala gërëm maanaam sa jëf yi ngay jëf yépp am na benn balance bu sew boo ko war a jaarale ba pare bala nga kaa jëf nit ki li ngay jëf war nga kaa peser ci benn balance balance bi nga koy peser nag mooy neex na yàlla wala neex na nit ñi ñaar yooyu la benn palaat bi neex na yàlla la benn palaat bi wala neex na doomu aadama yi ñaar yooyu rek moo fi nekk ci li ngay jëf dangay def ngir yàlla kontaan nit ñi mer wala dangay def ngir nit ñi mer yàlla kontaan kon li ngay jëf xoolaat ko bu baax a baax a baax ba xam yow ci ñaar yooyu ci ban nga ko ci teg bu fekkente ne bii ci lu neex yàlla la en tant que jigéenu jullit buy topp boromam bu gëm yàlla comme ni ñu ko waxee woon mu ne ah lii kat ma daama lu neex yàlla la ak kum mën dina xari ci kaw suuf dinaa ko def waaye tamit su fekkente ne bii su ma ko defee dina mer loo yàlla bégal doomu aadama yi ma ne la ak ku mën di mer ci doomu aadama yi sa affaire la maadaama yàlla bëggul rek damay bàyyi kon loolu moom mooy fi nga xamante ne bii foofu nga war a jaarale say jëf en tant que jigéenu jullit boo xamante ne bii bu bëgg yàlla la buy topp yàlla la buur bi subhan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax naan képp ku nga xamante ne bii dangay làmbatu dangay sàkk ngërëmal yàlla ci meru nit ñi nee na yàlla dina la dimbali ba doo soxlaal dara nit ñi parce que nit ñi boo dee def loo xamante ne bii bëgguñu ko boo leen soxlaalee dañ naan dama koy xaar li ñuy wax xawma mbottu mbooye danga koy xaar ca taatu ndaala ñoom ñu ngi lay xaar ca taatu ndaala yow tamit ba nga ñëw booy def loo xamante ne bii bëgguñu ko par exemple yaa ngi jéem a góorgóorlu ci sunna yaa ngi jéem a muuru sa yaay bëgg ko wala sa papa bëgg ko dina ne naa ko bàyyi ba tabaski ba mu ne ma papa xooj naa ko bàyyi ba ma soxla nangam ba mu ne ma papa nangam gis nga kon yaa ngi def loo xamante ne bi yaa ngi mer loo nit mais yaa ngi ci soxla buur buur bi subhanahu wa taala mu gërëm la yàlla nee na nag maa daama sama ngër maa ne nga ci soxla ba nit ñi di la ci mere dinaa la defal yow tamit ba ëllëg doo ba doo soxlaal nit ñi dara au contraire ñoom ñoo lay soxlaal waaye tamit képp ku nga xamante ne bii dafay bëgg nit ñi kontaan ba tax mu def man lu ma merloo man yàlla nee na wakkaltuhu ilan nas bàyyi dinaa ko bàyyi ak nit ñi mu xool ba xam nit ñi ëllëg lan lañ koy mënal loolu tey mooy mooy li ñu dal tey ñun ñu bari ci ci ñun dañu réer di def lu ñu neex rek te naan damay bégal nit ñi yàlla nee na kuy bégal nit ñi nangam ak nangam yàlla nee na kuy bégal nit ñi loo xamante ne bi ci lu xaraam kese kese kese nga nga nga ko teg ci loo xamante ne bi yàlla daf ko xaraamal yonente bi alayhi salaatu wasalaam araamal ko waaye kon yàlla nee na dina la bàyyeeg nit ñooñu nga xamante ne bi ñoom nga bëgg a bégal ba tax ngay def loo xamante ne bi lu merloo buur bi subhanahu wa taala la kon yow jigéenu jullit bi nga xamante ne bi da nga bëgg sa digganteeg sa borom na nga fexe kon ba dara du nekk sa yitte ci àdduna lu dul nga dee buur bi subhanahu wa taala gërëm la beneen bi ci des ba tey sa digganteeg sa borom mooy nga liggéey nga jëf nga taxaw ngir taxawal li nga xamante ne bii moom mooy diine yàlla ji ngir dimbali li nga xamante ne bii moom mooy diine yàlla ji ngir saxal wala ngir tasaare li nga xamante ne bii moom mooy baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ci kaw suuf kon tànk yaa ngi naan man bëgg naa yàlla wala maa ngi topp yàlla wala maa ngi def yàlla maa ngi maa ngi jaamu yàlla maa ngi def lii maa ngi def laa te yow jéemoo xool fan la lislaam bi tollu tey jéemoo xool naka ngay dimbalee lislaam bi tey rek na nga xam ne sa digganteeg sa borom des na des na lu bëree bëri sa personnalité yow jigéenu jullit bi bokk na tey ci liñ koy xamee mooy nga ne man lu ma mën di liggéey ci kaw suuf rek te defuma li nga xamante ne bii moom mooy jéem a saxal dëggug lislaam ci kaw suuf defuma li nga xam ne moom mooy jéem a xëcc nit ñi ci diine lislaam rek sama liggéey des na lu bëree bëree bëree bëri defalaguma dara lislaam ndax loolu presque moom mooy priorité bi ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla il faut ñu xam ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bala kaa yàlla yoon ni màkk amoon na fa ñoo xamante ne bii gëmuñu woon ay xëram daawuñu jaamu ay xëram màkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam laata ka yàlla di yónni amoon na ñoo xamante ne bii daawuñu jaamu ay xëram parce que xamoon nañu xëram yi laa yadur wala yanfa duñu lor duñu jëriñ waaye est ce que daanañ jaamu yàlla déedéet daawuñu jaamu yàlla parce que xamuñu woon moo tax buur bi subhanahu wa taala yónni yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo leen xamal pour ñu jaamu yàlla bu ko defee ñu mën a jaamu yàlla ndax loolu moom moo tax buur bi subhanahu wa taala bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma loolu rek moo tax mu bind leen léegi nag pour ñu jaamu ma il faut ñu jàng ñu xam ñu woo leen ci lislaam yow tamit pour nga ànd ak nit ñi jaamu yàlla jéema la nga woo nit ñi ci li nga xamante ne bi moom mooy baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah te yaakaar naa ne tey ñun jigéen rawatina ñun jigéenu jullit tey bu ñëpp taxawoon àdduna bi yëpp taxawoon di xeex islam ñun dañoo war a taxaw takku ba dëgër di défendre l'islam ndax wax nañ sànq suñu jal bay ni waxtaan ne gis nañ fi ñu nekkoon démb ak barki démb ñu bëri ci ñun sax yàgg du ñàkk yàgg nañu teewee waxtaan ñu lay wax jigéen fu mu nekkoon démb ak barki démb lislaam ñëw jëlee ko fa kon yow bu ñëpp taxawoon ne tey lislaam du fi tasaaroowee yow dangaa war a taxaw ne tey lislaam bi par force day jàll te yaakaar naa ne rek am na ay jigéen yoo xamante ne bii taxawee nañ ko ba mat sëkk yow rek yaa ci des kon gaawal gaaw bay sa waar ndax bu ñu xoolee démb ci lislaam amoon na ay jigéen yoo xamante ne bii daawuñu woon xare de mais bu jullit ñi di xare dañ ciy topp ndax bu ñu demee ku mar naan ci jigéen ci jullit ñi ñu may la nga naan ku blessé ñoo lay faj. am na ci koo xamante ne bii sax benn jigéen boo xamante ne bii sax àgg na ci ba mu déggee ba mu gisee mbiri mbiri mbiri cool comme ni ko xale yi di waxee dafa jël jaasi daal di daw dugg ca biir xare ba muy ci xare Uhud jigéen bu ñu naan Nusayba bintu Kaab al ansariya keroog ba mu gisee ne mbiri cool na gaa yaa ngi daw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kii naan ñu ngi wax naan rey na yonent bi rey na yonent bi dafa jug jël jaaseem dem xuus ci biir xare bi ba gis yonent bi taxaw di défendre yonent bi nangul jaasi kenn dal ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam te jigéen la woon moo tax yonent bi naan keroog bisu Uhud du ma gestu ndeyjoor wala càmmooñ wala sama ginnaaw lu dul ne maa ngi ko gis moom Nusayba muy xeex di ma défendre man yonent alayhi salaatu wasalaam est-ce que xeexam keroog ci xare Uhud kese la yem abadan xeex na bañ dagg loxoom xeex na ba xeex ci biir géej jigéenu démb ñi ngir défendre l'islam parce que ñoom xam nañ fi nga xamante ne bii foofu la leen l'islam jëlee xam nañ ne ñoom rek sax ñoo war a delloo njukkal l'islam ñoom xam nañ ne ku delloo njukkal l'islam ñoom dinañ ko delloo njukkal waaye tamit ku delloo wu njukkal l'islam ñoom dinañ ko delloo njukkal moo tax xaar ñu woon ba kenn di leen wax dara kon yow itam nga xam ne loolu kon sa wàll la ci lislaam diine ji loolu liggéey liggéey liggéey tant que jéemoo woo sa yeneen mbokku jigéen ñi ngir ñu ñëw wuyu si la ci li nga xamante ne bi moom mooy dëgg yàlla tant que jéemoo leen a xëcc ngir ñu ñëw tegu ci place bi nga xamante ne bi foofu la leen buur bi subhanahu wa taala teg tant que jéemoo leen woo ngir ngeen àndandoo yéen ñëpp yëkkati baatu laa ilaha illallah tasaare ko ci kaw suuf yépp rek xamal ne li ngay liggéey ak lu mu rëy rëy ak lu mu bëri bëri jàppal ne des na lu bëree bëree bëree bëri beneen bi ci des sa diggante ak sa borom mooy ngay jóg ci li ñuy wax waajibul amri bil maaruf wa nahi anil munkar digla lu baax ak tere lu bon ci loolu sax yow d'ailleurs dangay xam ne l'islam am na kon place bu mu la teg am na wàll bu mu la jox ci société bi loolu rek doy na sax ci nga xam ne kon yow l'islam may na la feu vert gën ne na nga dugg ci biir société bi def li góor ñi di def ndax wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an il munkar wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzakata wa yuticuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarhamuhum allah inna allaha azizun hakim loolu na buur bi subhanahu wa taala wax mu ne way gëm yu góor yi ak way gëm yu jigéen ñi kenn ci ñoom ñenn ñu nekk ci ñoom dañuy dimbalanteeg ñi ci des dañuy allié ak ñi ci des di digle lu baax di tere lu bon di taxawal julli di di di génnee azaka di topp yàlla ak ak ak ak ak yonentam yàlla nee na nag man ñooñu man yàlla ëllëg dinaa leen yërëm te moom yàlla ku tedd la moom yàlla ku xereñ la kon yow yàlla def na la ginnaaw ba nga nekkee maamura maa ginnaaw ba nga nekkee koo xam ne dañ lay digal yàlla daf laa wëlbatiku def la yow ngay digale mu ne la duggal ci société bi di xool doomu aadama yi képp ku nga xamante ne bii dafay def lu baax nga saxal ko ci waaye tamit képp kuy def naka su dul noonu nga génnee ko ci yow jigéen moo tax ba ci jigéenu jullit ñi dañ daan taxawee loolu démb taxawee ko seen biir kër yi ba ci taxawee ko ak ci société bi yépp ba mu daj kon yow tamit wareef boobu jàppal nekk lu la war la ngir nga defar ngir nga yëkkati sa personnalité sa digganteeg sa borom ngay digle lépp lu nga xamante ne bii lu baax la waaye tamit ngay tere lépp lu nga xamante ne bii naka sudul loolu la kon loolu lu tuuti la rek ndax ku nekk xam na ne lii ñu fi mbir yi nga xamante ne bii mbir yooyu lañ fi lim nekkul ne rek moom moo war a dox diggante doomu aadama bi rawatina jigéen ak boroomam am na yeneen yu bëree bëri waaye dañu tënk ci yii rek ngir ñu mën a am waxtu ba jàll ci beneenu ñaareelu tomb bi muy alaqatul mar al muslima maa nafsiha wala shaxsiyatul mar al muslima maa nafsiha yow jigéenu jullit ban comportement wala ban personnalité la la l'islam tëggal ngir nga mën koo mel ak sa bopp ndax ku nekk ci ñun xam na ne l'islam dafa bëgg jullit bi toujours muy am gisin wu rafet wala mazhar maanaam ñu koy gis-gis bu rafet daal ci soruwaayam ci doxanam ci doxinalam ci jëflanteenam ak ci bépp mbiram rek buñ ko xoolee mu gis ñu gis ko mu nekk loo xamante ne bi lu rafet la lu tax parce que dañu nekk royuwaay dañu war a nekk ay royuwaay ba pare it ci melokaan boobu ngay mel doxalin yooyu ngay doxal ci ngay nekkee ne yaa ngi jottali message bu mag bi nga xamante ne bii moom la buur bi subhanahu wa taala sant la nga jottali ko yow jullit bi muy woote ngir yëkkati baatu laa ilaha illallah loolu ñëw na ci benn xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak saxaaba yi ci benn tukki bi ñu demee ba jug nit ñi mu ne saxaaba yi defaraat leen seen waruwaay yi ba mu rafet jubbanti leen seen mbubb yi defaru leen ba jekk ndax ci ay nit ngeen jëm jullit bi fu fu nga war a xoolee rek dañoo war a xool ne gis ne kat ah kii kat moom macha allah. waaye tamit bul jàpp ne kon l'islam góor ñi kese la ko sant yow itam jigéen l'islam sant na la nga mel melokaan boo xamante ne bii ku la gis rek dina xemmeem li nga xamante ne bii moom mooy sa diine ndax sa gisuwaay bu rafet bi nga xamante ne bii moom lañ lay gis. waaye nag newuñu la nga ëppal ci newuñu la nga gàttal ci ndax sa gis waaye boobu nga xamante ne bi moom lañ lay gis moom mooy wax nit ñi yow yaay kan moom mooy wax nit ñi sa borom kër day wane sa dund borom kër day wane sa dund njaboot ba ci sa biir kër sax dañ ko ciy xam ndax bari na nit koo xamante ne bi da nga koy gis da nga koy gis benn bés nga dem këram rek ñu ne la fii de mooy kër diw nga ne ah lii kay bett moom fii kay diw kii kay ni mu mel ci mbedd mi xamoon naa ne këram noonu lay mel wala ñu présenté la benn doomam nga ne kii koy diw rek moo mën a nekk yaayam ndax gisuwaay bi ñu koy gis moo xam lu rafet la moo xam ci lu ñaaw la kon loolu lislaam daf la cee ñaax bu baax a baax a baax yow jigéen nga góorgóorlu ci nga bañ a topp rek comme lu ñu bari ci ñun niñ koy defee léegi ne damaa njaboot doom yaa ngi ma wër fii yaay yaay yaay goro baa ngi fii di wax ba tax na damay nekk ci kër gi suba ba ngoon jot sol benn sagar xeeñ ku sobleeg laaj nekk ci biir kër gi ba timis jot duma sax tala sangu pour mën a accueillir ki nga xamante ne bii moom mooy sama borom kër te bu ñu waxee nga ne damay sëy islam sant na la nga sëy mais du noonu ngay sëyee sëyal mais fu ñu la xool rek nañu xam ne yow mi yaa ngi yor comportement yaa ngi yor gisuwaay bu rafet nga nekk koo xamante ne bii ku neex a xool ngay doon waaye koo xamante ne bii fu ñu la fekk rek yaa ngi sol ay sagar mel ne aawo yi rek niñ koy defee loolu ñu war kaa moytandiku bu baax a baax ndax jigéen l'islam daf la sant comme ni mu santee góor na ngay defar waaye tamit newu la yi tamit na nga ëppal ci sa bopp bay def loo xamante ne bii buur bi subhanahu wa taala santaanewu ko ndax bu ñu xoolee tey dañuy gis ñenn ci ñun ñoo xamante ne bii dañuy ëppal ci nit ñi soloo ba nga xam ne nit ñi duñ leen ñeme da ngay gis sax ku bëggoon a muur waaye nag ah diw dañuy muy muuroo tax na man ma ragal muuraay waaye tamit gis koo xamante ne bii ah kii kat ni may def ak man ñoo yem jaru may muur dangal ibaaru dangal ibaaru def li ibaaru def laa man ak moo ma yem ñaar yooyu yëpp baaxul xayru umuri aw satuha l'islam dafa am calka bu mu la jox ne la nii nga war a solo kon yow noonu nga war a solo waroo cee waroo faa ëppal waaye tamit waroo cee wàññi dara waaye kon l'islam naka la la digal nga mel sa digganteeg sa bopp doomu aadama bi li muy rëy rëy rëy lu muy tuuti tuuti tuuti weesuwul ñett weesuwul yaramam xelam ak ruwam ñett yi rek ñoo am importance ci doomu aadama li ci des yëpp yàpp ak deret rek la jëriñul dara yaram bi xel bi ak ruu bi bu ñu baaxee rek alhamdulilah waaye suñu bonee rek nañu xam ne yàpp ak deret doo nga fa nekk ak jëmm yuy dox waaye doomu aadama nite nekkatu fa kon l'islam sant leen ne la ñett yi na nga leen fonk na nga leen defar ba ñu équilibré tolloo bu kenn ci ñoom dem bàyyi ka ca des ndax tey bëri na nga gis nit koo xam ne macha allah solo na ba jekk trop waaye ay tey su dara xewoon ba nga laaj ko ci sa xalaat su waxee nga taf say nopp ndax waxu dofee muy wax kon kooku fexe na ba defar jëmm ji mais xel mi fexewul mu toppatoo mu topp mu tolloo rek ak jëmm ji wala koo xamante ne bii rafet na ci col rafet na xalaat waaye ruwam digganteem ak boroomam defaru fa dara kooku tamit amul njëriñ kon l'islam li mu la bëggal yow ndaw si mooy na nga fexe ba ñett yi nañ tolloo benn ci ñoom bu mu dem wàcc ba ca des bu ci njëkk muy sa yaram sa yaram boo dikkee ci wàllu lekk ak naan ndax loolu mooy dundal yaram waaye buur bi subhanahu wa taala ne la bu ci ëppal kulu washrabu wala tusrifu lekkal naanal waaye bul ëppal waaye nag ñun tey ñu bari ci ñun lii rek lañ ñaar ñoo xamante ne bii dañ ne man taay fin rek laa bëgg a nekk di lor seen bopp ba duñ lekk ak ñi nga xamante ne bii ñoom di yanke añ naan ko tundaalu meew reer ba pare tël bool fonde naan di yanke di yanke lekk lekk lekk ba boo tëddee doo doo doo doo tallu dul nelaw kon loolu yépp yàlla subhanahu wa taala sant la ko na nga lekk lu yam naan lu yam comme ni ko yeneen bi alayhi salaatu wasalaam waxee ne la sa biir xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi nga def ko lekk benn xaaj bi ni ngay naan beneen xaaj bi ngir nga mën a nooyi waaye ci ñun da ngay gis ñoo xamante ne bi dañuy lekk ba duñ mën a nooyi ngir naa bëgg am yaram wala damay sëy su ma lekkul sa mbokk yi suñ ma gisee dañ naan sama sëy neexul fekk yaa fi gën a naqari sëy ci àdduna bi am yaram taxu te sa sëy neex ñu gis la yaakaar ne sa sëy neex na te sa sëy neexul loolu tamit amul benn importance kon nga diggu doomu ci li nga xamante ne bii loolu la la buur bi subhanahu wa taala sant ci sa wàllu lekk ak ci sa wàllu naan beneen bi ci des it mooy nga sori yenn aada yu bon yi nga xamante ne bii tey ñu bari ci société yi tey ci àdduna bi boo demee dañ ko tàmm muy nekk di waxtaan ba ci yenn heure yu guddee yi tey surtout ci vacances yi jamonoy tàngaay ñu bari ci ñun dañuy toog neexaayu féexaayu biti bi ak ataaya ji di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba ay 2 heures du matin 3 heures nga door a dem tëddi su fekkente ne bii ku yor liggéey la yoo war a def bu ñëwee asalaatu nga bëgg a jug bëgg koo def fekk yaa ngi tàyyeel nelaw yaa ngi la ñettamal sa yaram noflaay bi nga xamante ne bii moom la waroon a am du ko am sa liggéey da nga koy def même bu dee ñetti pepp liggéey nga waroon def da ngay dem fii ba timis doo pare ndax doo da nga dul ànd ak cawarte amaa nag bu fekkente ne bii topp nga njub gi nga xamante ne bii moom la la islam jox li ñuy wax nii nag xëy na dinañu ah lii mooy nag l'islam moom moo mel noonu l'islam mooy diine boo xamante ne bi dafa matal comme ni ko buur bi subhanahu wa taala di waxee maa faratna fil kitaab min shay yàlla bàyyiwul dara li ngay dundee doomu aadama bi li ci gën a rëy ba li ci gën a tuuti buur bi subhanahu wa taala daf lay wax ne nii nga ko war a defee kon nga war a nekk kuy teel a tëdd ngir nga mën a teel a yeewu def sa li ngay def waaye nga def ko ak cawarte nga def ko ak kattan nga bañ koo def ak tayeel ak gëmmeentu loolu la buur bi subhanahu wa taala namal loolu la leen islam bëggal ndax loolu tamit bokk na ci luy fesal sa personnalité bu ko xeeb ndax koo xamante ne bi yow saa yu dikkee rek ñu ngi la fekk yaa ngi nekk ci liggéey yaa ngi nekk ci liggéey lan moo ko waral da ngay guddee tëdd bëgg a teel a yeewu boo yeewoo doo sawat wala da ngay guddee tëdd doo mën a teel a yeewu nga nelaw ba yenn heure yi nga xamante ne bi nit ñëpp liggéey nañ ba pare yow nga bëgg a jug heure boobu bëgg a mën a commencé sa liggéey loolu nekkul persona nekkul luy feeñal sa personnalité moo tax l'islam namalu la loolu ba tey sa digganteeg sa yaram ñu ne la comme niñ ko waxee woon sànq l'islam sant la na nga solu na nga taaru na nga rafet waaye nag bu tarxis mu ba dugg ci loolu ñu naan ak tabarruj taaru yenn taaru yu ëpp yi nga xamante ne bii day waral ay fitna ak i musiba ci société bi ndax tey bëri na ay jigéen yoo xamante ne bii macha allah ñu góorgóorlu di muur waaye muuraay gi dañ cee rax taar bu ëpp boo xamante ne bii bu ñu génnee rek ay góor di wax ci ñoom wala ay góor di xemmeem ci ñoom te loolu taxul woon ngay muuru loolu taxul woon ngay muuru tey gis nañ fi tey ci mbokk yi ñu bari dañuy muuru sol jumbax aaw muur sa bopp sa jumbax nekk ci biti muur sa bopp sa ginnaaw nekk ci biti muur sa bopp sol sol jiin seere kon yi ngay gis léegi doo xam ay njàmpe sangukaay la doo xam ay sagaru tayukaay la doo xam ay mouchoir la te loolu yëpp noonu lislaam yi ñoo ko fi indi noonu lislaam yi kon yi ñuy muuroo yëpp ñun defaruñ ko noonu lislaam yi ñoo ko fi indi bëgg ñoo gëm loo ne danga war a xawma danga ko war a teg ci temps bi mais lépp looy teg ci temps bi lislaam moo njëkk a wax ne tegul ci temps bi moom moom mi la ne solul mais tegul ci temps bi waxu la nga tegoo ci noo xamante ne bi neexul buur bi subhanahu wa taala kon tey ñun lii lépp tey dañ koy gis ñun ay jigéenu jullit ñu di ko def yamul nag ci ñuy muur kese de da ngay gis doomu jullit boo xamante ne bii mi ngi solu awraam yépp nekk ci biti loolu dañ ko fiy gis xale jigéen boo xamante ne bii bu du ñemee sëgg wala du ñemee toog bu toogee rek nga gis awraam yépp ci biti te ñu bëgg wax ne ñun ay doomu jullit lañu nga mel melokaan boo xamante ne bii yow tey suñ ne la woon est-ce que bëgg ngaa deewee nii danga naan ñaanuma yàlla deewee nii ñaanoo yàlla deewee sa jiin bu bon bi nga sol ñaanoo yàlla deewee li nga xamante ne bi yaa ngi ko sol sa awra yépp a ngi nekk ci biti ñaanoo yàlla deewee noonu ba pare xamoo kañ la dee di ñëw te yow yaa ngi sax ci loolu te naan ñaanuma ko yàlla ñaanuma ko yàlla loolu jullit bu jigéen bu nekk war na koo daw jullit bu jigéen bu nekk lépp loo xamante ne bi ñaanoo yàlla sooy dee dee gi fekk na ci loolu rek loolu yow war ngaa fexe góorgóorlu ba doo ko def kon ñu fexe waat xoolaat bu baax ni ñuy soloo ñu jéem a soloo li nga xamante ne bii noonu la ñu buur bi subhanahu wa taala sante ñu soloo ko xam nga démb jigéen daana solu teg muuraayam comme ni ko buur bi subhanahu wa taala sante mu génn amul benn góor bu ko ñemee woo bañ nga ko sax danga daan dégg góor ñi démb ñuy wax ne man man de soxna ibaadu laa bëggat am su may takk jigéen buy muuru laay takk waaye léegi xëy na di nga ko dégg mais bëreetul démb est-ce que mos nañoo gis benn jigéenu ibaadu bu génn ñu naan la eh booy taxawal ma wax ak yow ñu lay taxawloo ci mbedd yi ak di la tàpp démb amul woon mais tey pourquoi mu am pourtant muuraay la de voilà waaye muuraayee bokkul ni ñu yàlla subhanahu wa taala santee nañ muuroo noonu lañ muuroo te muuraay boobu pourtant daf la war a aar ba kenn du la yab daf la war a aar ba boo ba ba doo nekk fowukaay daf la war a aar ba teg la ci place bu kawe boo xamante ne bii loxo yi nga xamante ne bii ay fowkat lañ duñ àgg ci yow ndax looloo taxoon yàlla subhanahu wa taala wàccee muuraay ndax jigéen ñi dañ daan génn di faji seen aajo ci àll ba ay góor di leen dogaale di leen def naka su dul noonu te góor ñooñu ay góor caaxaan lañ naafeq yeeg yéeféer yi ay caaxaankat lañ xàmmeewuñu góor jigéenu jullit beeg ku dul jullit ñoom jigéen ñëpp lañ koy def waaye jigéenu jullit ñi pour yàlla génnee leen ci yàlla daf leen wàccee muuraay moo tax ci fay aay bu ne daalika adna ay yoraf na falaa yuzay na day tax ñu xàmmee leen ba kenn du leen lor bañ ko defee bàyyi nañ leen dem ci yeneen jigéen ñi ci des yow tey yaa ngi nii di muur ba pare te muccoo ci yooyu yëpp kon war ngaa xoolaat sa muuraay bu baax a baax a baax yow mi nga xamante ne bii tamit bëgg ngaa mucc ci yooyu war ngaa delluwaat jàngi sa diine xool naka la la lislaam sant nga mel ba kenn du la yab nga fexee mel noonu ba kenn du la yab waaye tamit ba kenn du la fowee kon lii mooy jubluwaay buur bi subhanahu wa taala ci nga sol colin bu baax sol ko boo xamante ne bii soo toogee sa bopp soo toogee sa borom kër dina bég waaye tamit soo génnee dem ci mbedd ba kenn du loo ñemee xool ba di la yab ñaareel bi dañ ne woon nit ki wala lislaam li muy fexe ci doomu aadama bi ci wàllu yaramam ñu tolloo mooy yaramam ak xelam ak ruwam kon loolu mooy ci wàllu yaram bi na nga fexe ba defar ko bari waaye defar nga bu mu doon defar boo xamante ne bi dafay waral meeru buur bi subhanahu wa taala waaye tam bu mu doon noo xamante ne bi day tax nit ñi di daw li nga xamante ne bi moom mooy njubu buur bi subhanahu wa taala ñaareel bi mooy sa xel sa xel lislaam dafa am nu mu la ko defaralee wala nu mu la sant ne nanga fa jaar ngir sa xel mii baax kat ba ëllëg foo taxaw rek sa personnalité dina fa yëkkatiku ndax xel bu rafet bi nga xamante ne bi moom nga fay toogee. xel nag moom daanikaam buñ nee nañ ko defar rek ñu bëri ci leen rek la seen xel di dem muy jàng ndax loolu rek moom moo mën a defal xel wala boog moom mooy priorité bi moo jëkk ci li ñuy defaree xel muy jàng. te doomu aadama nee na ñaar yi rek la almaru bi asgarayhi qalbuhu wa lisaanuhu comme ni ko waykat bi waxee nee na nit moom ñaari ñaari ñaar yi gën a ndaw ci doomu aadama ñaari cër yi gën a ndaw ci doomu aadama nekk te loolu moom mooy nite muy xolam maanaam xelam ak xalaatam ak làmmiñam ndax nit ci ñaar yooyu rek lañ lay nawee tey bëri na ñoo xamante ne bii tey fu ñu toog di wax rek danañ leen déglu ndax seen làmmiñ dañu xam naka lañ koy jëfandikoo cër la bu leen yàlla jox wërsëg la bu ñu war a santee buur bi subhanahu wa taala ndax tey bëri na doomu aadama boo xamante ne bii ëppoo ko alal ëppoo ko barke waaye yàlla téye na làmmiñam mun ta wax kon yow yàlla subhanahu wa taala defal na ko ba pare wëlbatiku teg la nii nga ko war a jëfandikoo nga jëfandikoo ko noonu ba ëllëg boo toogee di wax ñépp di la déglu waaye tamit nga yor sa xel bu rafet ak sa xalaat bu rafet boo xamante ne bii fu ñu toog di fa laaj ci xalaat yi rek dinañ la fa laaj sa xalaat yow jigéenu jullit bi loolu na la lislaam nammal te dañuy am ñoo xamante ne bii wala boobu bu njëkk ba dañ daan wax naan la jigéen diisool ak moom booy diisool diisool ak jigéen ndax xelam inna kaydaku naazim jigéen dafa màgg pexe xel bi dafa rëy fi muy xalaatee dafa kawe moo tax nag ñu ñu daan wax naan jigéen booy diisoo diisoo ak jigéen waaye bu la waxee lii defal lee ndax ñoom dañoo bon ñoom ñu bon ci jigéen ñi rek ñi nga xamante ne dañu bëgg a toroxal jigéen bëgg a doyadal jigéen ñoo koy wax. te li gën a metti ci wax ji mooy dañu ne wax ji Ali ibnu Abi Talib moo ko wax Ali ibnu Abi Talib mooy borom këru Fatimatu bint Rasul yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko yar ci biir këram. yonent bi ko yar ci biir këram da daan jël xalaatu jigéen ñi kon xel nanguwul Ali wëlbatiku di wax loolu ci jigéen. keroog jullit ñi bi ñu demee ne dañuy aji màkka jóge Madina biñ ñëwee ba ci yoon bi waa màkka yónnee ndaw ne jullit ñi duñ mën a ñëw muy bi ñuy wax sulhul Hudaybiya ba ay mbir yu bëree bëri xew fa ba waa màkka def seen délégation ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi mu campé mook saxaaba yi ndax dañoo yónni woon ndaw màkka campé foofu nag di xaar ñooñu ñëw waa Màkka biñ defee seen délégation ñëw gisee yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu tëral ay charte yu bëree bëree bëree bëri pour yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ay charte yoo xam ne day dox seen diggante ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi daal di d'accord ak ñoom ci loolu. bokk na ci charte yi ñu ne yonent bi at bi moom na wàññeeku bu mu aj si ba déwén mu mën a aji ak yeneen ak yeneen te jullit ñi ñi yabaloon dañ leen a jàpp foofu tëj leen. yeneen jullit ñi bi ñu ko yëgee rek ñoom pare nañ nee nañ pour xare pare nañ pour xeex ngir topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak fiir gi ñu fiir ci seen diine ak bëgg gi ñu bëgg seen bokk jullit yooyu nga xamante ne bi yéeféer yi téye nañ leen fi waaye yonent bi bi mu dikkee ba waxtaan ak bi yéefar yi ñëwee ba waxtaan ak moom ba ñu d'accord dootuñu xeex fii ak 10 ans duñu xeex ak ay charte yu bëree bëri ñu teg ko yonent bi d'accord ak ñoom yonent bi bi mu ñëwee wax ko saxaaba yi saxaaba yi ñoom dañoo bañ d'accorduñu dañu yonent bi warta woon d'accord ñoom charte yooyu daal ñoom nanguwuñu yonent bi ne leen léegi comme amoon nañ yéene aj te jotuñoo jotuñoo dugg Màkka pour aj nañu watu ñii watu ñii wàññi seen kawar nañu wàññi seen kawar ñii rey seen gàtt daal di rey seen gàtt ñu daal di mën a wëlbatikuwaat delloo Madina gañ jóge woon saxaaba yi dañoo bañ toog jàpp seen ñàmbur kenn faalewul yonent bi jug leen watu ji wala ngeen wàññi ji bu ngeen paree ngeen rey seen i gàtt ñu toog ndax ñoom d'accord ñu ci li yonent bi d'accord ak yéeféer yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu duggee yonent bi bu daan tukki rek day ànd ak kenn ci soxnaam yi tukki boobu mu ngi ci àndoon ak umul muminin umu salama radiallahu anha bi mu duggee waxtaan ak umu salama ci li gaa yi def umu salama moo ko jox xel moo ko ne génnal bul wax ak ñoom demal ci ki lay wat mu wat la soo paree nga rendi sa gàtt dugg sa biir néeg bi mu génnee woo ki kay wat mu ñëw wat ko mu pare jubali ci xaram rey saxaaba yépp dañoo jóg ñii watu ji watu ji ñii wàññi seen karaw wàññi ñu pare dem rey ñu pare takkaat seeni warwaay daal di dem ci jóge woon tey ñoom ñi ngi doon naroon a mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di alku waaye jigéen moo leen ci génnee xelu jigéen bu rafet kon l'islam yow noonu la la bëggal mu bëgg ngay roy ci gaa yu baax yooyu nga xamante ne bii dañoo yoroon wala jigéen yu baax yooyu nga xam ne dañoo yoroon ay xel yu rafet daan ko jëfee daan ci jëriñ islam waaye tamit daan ci jëriñ jullit ñi yow jigéenu jullit bi tamit xel moomu tey ji war nga kaa yore ngir dimbali ci ñi nga xamante ne bii moom mooy say mbokki jullit ngir dimbali ci li nga xamante ne bii moom mooy l'islam te comme ni ma ko waxee woon sànq mbokk yi xel amul dara lu koy defar lu gën wala lu ëpp valeur li nga xamante ne bi moom mooy xam-xam te xam-xam yàlla daf ko farataal ci jigéen ñi ak ci góor ñi yépp talabul ilmi faridatun ala kulli muslim la hadis bi wax waaye ala kulli muslim boobu dafay ëmb góor ak jigéen ñépp war a sàkku ji xam-xam moo tax keroog saxaaba yaat yi saxaaba yu jigéen ñi bi ñu toogee ci yonent bi ba gis ne yonent bi daal góor ñi lay toogal góor ñi lay jàngal góor ñi lay waar góor ñi góor ñi góor ñi dañoo def seen délégation ñoom tamit dem ba ci yonent alayhi salaatu wasalaam ne ko góor ñi kat gañe nañ ñu ñooy toog ak yow nga di leen waar di leen jàngal di leen xamal léegi nag ñun tamit dañoo bëggoon nga utal ñu bis boo xamante ne bi ñun ñoo koy moom nga di ñu ci waar di ñu ci jàngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daat leen di jox rendez-vous ci kër kenn ci ñoom ne leen nañ fay daje buñ fa dajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waar leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal leen daat leen di fàttali seen diggante ak seen borom loolu xadis la boo xam ne Buxaari yi moom moo ko solo kon jigéen ñi démb fonkoon nañ xam-xam trop amaana nag tey ñu bari ci ñun suñu laajee ci wàllu xam-xam jigéen ñi démb dañ naan yaa Aïcha moo nekkoon jigéen bu ëpp lum soloo xadis wala Abu Hurayra kese moo ko ëpp lum soloo xadis à part Abu Hurayra moom la du yaa Aïcha kese bari na ay jigéen yoo xamante ne bi ay jigéenu borom xam-xam lañ ci saxaabiyaat yi ak ci taabi'iyaat yi waaye est-ce que xam nañ leen est-ce que xam nañ leen ngir ñu mën a roy ci ñoom déedéet bay na waa nag tey lépp lu nga xamante ne bii moo ñuy may tey xam nañ ko lépp loo xamante ne bii mooy defar suñu biir néeg yi suñu digganteeg suñu borom kër yi xam nañ ko waaye ñu déedee lu ëpp suñu mbiri diine wala tamit sax suñu mbiru àdduna yi nga xamante ne bii dafa am solo te xam-xam ci l'islam buñ ko xaajee ñaar xaaj la daf ci am xam-xam yoo xamante ne bii farata la fardu ayni la da nga koo war a def am xam-xam yoo xamante ne bii fardu kifaaya la yenn ci jigéen yi ñoo ko war a taxawee ngir bàkkaar bi rot ci yeneen yi ci des xam-xam yi nga xamante ne bii fardu ayni la farata la boo xamante ne bii yow rek yaa ko mën a defal sa bopp mooy comme ay julleeg comme koor ak ak yu demee ni ki noonu mooy yi nga xamante ne bii ay jaamu yàlla la jullit bu nekk war nga góorgóorlu ba xam ni ngay jaamoo buur bi subhanahu wa taala waaye ma al asaf da ngay gis ci ñun jigéenu jullit bu juddu ci ndey ak baay juy jullit keroog muy dugg néegu borom këram lañ koy jàngal sangu set keroog muy dugg néegu borom këram lañ koy jàngal sangu set loolu am na fi du fi jeex du fi xaaj ñaata ngay gis ci ay jigéenu jullit yoo xamante ne bii tey boo leen waxee sooy julli nga tari fatiha ci premier rakka bi fàttee tari benn saar nga fàtte ko baru koo nan ngay def ñaata ci ñun mooy loo xam te boo ko xamul te julli awwalu maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaama moom la yàlla di njëkk a xool ëllëg say jëf su baaxee rek yàlla dootul xoolati yi ci des danaan la demal waaye tamit su bonee dana fa ngay taxaw doo dem fa ngay taxaw ñu xool yi ci des wala sax su su bonee yëpp yi ci des yëpp day bon kon mu nekk lu ñu war a fonk waaye tey maal asaf ñun jigéen ñi bokk nañ ñu ko gën a sàggane da ngay gis koo xamante ne bi ñu kàbbat di julli awraam yépp nekk ci biti li muy muuroo dafa yaraa ba pare jotul waxuma la dara waaye bopp ba mën ko sëf ba fees te naan bi may jàpp kii naa ko dugal naa sama loxo ba ci biir dugal naa sama loxo ba ci biir taxul jàpp li baax yaa fii da ngay da sa bopp rek ngay nax na ko kenn wallaahi sa bopp rek ngay nax bi may sangu ndox mi dama ko cee sotti bu baax dugal sama baaraam boobu taxul nga set ndax sobe la li nga def sa bopp ci boppam moom moo nekk sobe kon nga sangu boo setee ci li nga tax a sangu tamit setoo ci sobe gi nga xamante ne bi moom moo nekk ci sa bopp kon mu nekk ay mbir yoo xamante ne bi dañuy nax suñu bopp rek ñu góorgóorlu bu baax seytaane moo ñu koy taarala rek muy taaru àdduna ñu góorgóorlu bu baax ko moo tandiku ko mees buur bi subhanahu wa taala moo ko araamal laana allahu alwasilat alwasila wal mustawsila yàlla yonente bi nee na yàlla yàlla solin yërmandeem képp ku nga xam ne dafay jël beneen kawar di ko jokk ci kawaram ak ki ku koy defal nga gis koo xam ne moom day am lu muy këpp ci bopp bi ne la dama ko cee këpp rek su may sangu dama koy julli wala su may jàpp ku la ne jàpp ak sangu moo tax yàlla tere la mees ak péri loolu taxul yàlla tere la ko su doon loolu la dina ne la soo julliwul da nga teg sa mees sooy julli nga firi ko dafa xaraam lu xaraam la bur bi subhanahu wa taala moo ko xaraamal kon ñu góorgóorlu ñu bàyyi ko te xam ne ay jullit lañu ay jullit lañ dañu ñëw fii rek ci kaw suuf ngir jaamu fi yàlla ëllëg dañuy dem àdduna nañu ko jàppee comme kuy tukki kuy tukki naaj bu tàng jër nga dem ba ci àll bi nga gis benn garab bu féex dox nga ba sonn nga ne naa toog ci kër garab gi noppaliku ba ci kanam soo toogee noppaliku ba sa coono wàcc nooy def da ngay jugaat dem da ngay yóbbaale garab gi da ngay yóbbaale kenn déedéet kon àdduna bi lu ñu fi am lu mu bëri bëri bëri lu mu néew néew néew bu ñuy dem duñ ko yóbbaale lenn dong lañ fa mën a yóbbaale mu jëriñu muy li nga xamante ne bi ñu ko daan jëf mu jëriñu wala mu loruñu nag jëf kese lañ fa mën a yóbbaale moo xam jëf ju baax la moo xam jëf ju bon la kon ñu góorgóorlu ba nga xamante ne bi duñ perte àdduna perte àllaaxira ndax jullit boo xamante ne bi yaa ngi ci àdduna jëriñoo woo fa dara ndax boo nee ni nga ne ay doomu jullit buy def nangam te yaa nga nekk ca lu la neex sañoo def yenn yi ndax nee nga doomu jullit nga ba pare nga dee amoo sa àjjana nga nga doon bëgg en tant que doomu jullit kon loolu war nañ koo moytandiku bu baax rawatina ñu ñi nga xamante ne bi ñu ñooy jigéenu jullit yi beneen bi ci des mooy jigéenu jullit bi yan la war a xam lan la war a xam ci diineem tey bëri na ci ñun ñoo xamante ne bi bëri na ci ñun ñoo xamante ne bii tey faatiha bu jub mënuñu la koo tari en tant que ab jullit te jullit alquran mooy dustuuram alquran mooy yoon bi nga xamante ne bii ci lay jaar ba mucc ci lay tegu ba mucc mais soo ko jàngul naka nga koy jëfee ba mucc kon loolu nekk na ci priorité bi loo xamante ne bii loolu nga war a njëkk a xam muy sa téere buur bi subhanahu wa taala ak itam nga fexee mokkal ay xadis ci waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga fexee jàng dundu gaa yu baax yi rawatina jigéen yu baax yi fi nekkoon démb ci saxaabiyaat yi ak taabiyaat yi ngir nga mën a roy ci ñooñu nga xamante ne bii ñoom ñooy gaa yu baax yi. comme amuñu temps boo waxtu wi dafa dafa ñëw nag xam naa ne dañuy tënk li ci des muy sa ruux dañ ne woon sa yaram la ak sa xel ak sa ruux sa ruu mbir la boo xamante ne bii presque moom mooy dox sa digganteeg sa borom moom mooy nekk sa digganteeg sa borom moom ngay jéem a baaxal ngir sa digganteeg sa borom daal di baax ndax gis nga sooy dee sa ruu la ñuy jël yóbbu jëmu yi doo nga fii des ruu bi la yàlla soxla ruu gi su àggee kaw asamaan imaam mu àgg fa fekk mi ngi laab wala mu àgg fa fekk laabu bu fekkee àgg na laab yàlla na nañ ko tijjil buntu asamaan yi mu yëg inna kitaabal abraari la fi alliyin bu fekkente ne bii nag luu gi àgg na laabu asamaan yépp malaaka yépp taf seen bakkan yàlla ne delloo leen ko ci suuf bu mu agsi na na wàccaat ci suuf ruu googu soxlawuma ko te sa ruu moom la ñuy mbugal mooy yëg na mooy yëg taraayu mbugal bi waaye tamit moom mooy yëg li nga xamante ne bii moom mooy bànneexu àjjana gi ngay xewloo kon lii nga tax ngay yëg sa yaram bi du dara du dul bi kon moo tax lislaam ne la na nga ko defar ngir nga mën a am personnalité bu jub yow jigéenu jullit bi ni nga koy defaree nag moom du dara lu dul tàggat ko ci boroomam tàggat ko ba mu bëgg buur bi subhanahu wa taala tàggat ko laabal ko ci jaamu buur bi subhanahu wa taala nga utal ko àndandoo bu baax boo xamante ne bii moom moo koy wettali ndax waykat bi mi ngi naan anil mar i la tasal wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi boo bëggee xam diw mooy kan bul dem ci moom nga naan ko yow yaay kan wala ngay dem ci ay mbokkam naan diw mooy kan laajal diw kan lay àndal soo xamee ki muy àndal rek di nga xam moom mooy kan ndax ku nekk rek ka ngay àndal ci moom ngay roy moo tax lislaam di ñu sant suñu ruuj yi nañ ko utal àndandoo bu baax boo xam ne da koy wéttali da koy fàttali boroomam fan yii passé maa ngi déglu benn kaset benn xale bu jigéen boo xam ne ndeysaan da doon dégg da doon góorgóorlu ci diineem sàmmante digg sàmm digganteem ak boroomam waaye yàlla daf koo nattu ka muy àndal mooy loolu comme ne ko xale yi di waxee waaye am na ful la ju day ne en tant que jigéenu jullit moom mooy jéem a wëlbati ki mu àndal pas ki muy àndal moo koy jéem a wëlbati comme ñun tey bari na ci ñun tey ñi nga gis ñuy muuru di dangal ak a sol di wax aaw taka def naka su dul noonu ñëpp àndandoo moo leen ci dugal lu ci ëpp waaye moom am na fulla gu doy ne ku muy àndal yaa koy fekk ci lu nekk pas moomu di la fekk ji fu mu toll rek ndeysaan day waa xarit bi kañ ngay muuru kaay muuru dinaa la may ay kol defal defal waaye xarit bi tamit seytaane ak bànneexu àdduna ba ci kanam léeg-léeg mu ne ko ba ma am jëkkër léeg-léeg mu ne ko ba ma nekk meer teel na xale laa damay dox sama ndaw di ko def noonu ba benn bés mu ñëw ne xarit bi kaay gunge ma marché dafay damay xotti ji xarit bi ne ko soo bëggee ma gunge la de damay dem benn waxtaan nañ ànd ci waxtaan bi ba déglu su waxtaan bi jeexee ma gunge la marché mu ne ko amul problème kon nañ dem biñ ñëwee egsi ci waxtaan bi toog déglu waxtaankat bi mi ngi doon wax ci colinu jigéenu jullit jigéenu jullit naka la war a soloo nekkete affaire bi dugg na ndaw si mu jooy fa jooy yu metti rëccu lépp lu nga xamante ne bii daan na ko sol ci naka sudul noonu mu waat ne fii ma toog ci baas bi di déglu du ma fi jóge mukk lu dul maa ngi sol comme ni ma buur bi subhanahu wa taala digalee ma soloo loolu lan moo ko may àndandoo bu baax bi mu doon àndal jigéen ñi fa nekkoon am quelque ñu jóg daal di dem indil ko yëre bu jot ak kol ndeysaan mu daal di solu daal di muuru waxtaan bi tas muy génn di dem marché oto fel ko mu dee kon gis ngeen kooku ni ko àndandoo bu baax sobee moo tax ëllëg yowmal xiyaam yàlla ne ay nit dinañ màtt fii bu la bu boo amee dara lu la metti wala dara lu la raw nooy def nii ah sa benn baaraam ngay màtt ëllëg yowmal xiyaam nag yàlla nee na yowma yaaddu zaalimu ala yaday sa ñaar yoxo ngay màttandoo xeeb nga baaraam xeeb nga loxo sa ñaar yoxo ngay dugal sa gémmiñ di màtt booy màtt looy wax yaa laytani aka neexoon ma jël yonent mu nekk sama xarit aka neexoon ma topp gaa yi baax ya def leen ay xarit yaa waytani lam attaxis fulaanan xalila aka neexoon diw bañ a nekk sama xarit ndax lan laqad adallani an dicri bada is jaani moom xamoon naa yàlla de demoon naa bay tegu ci yoon bi moo ma réeral moo ma wàccee moo ma ne bul topp ñee ñee di muuru dañoo tardé bu leen topp kaay fii ma won la temps teg la ci jamono moom de moo ma ko waral waaye kay de tey ëllëg bu demee du ci ki mu doon àndal moo tax kon li ñuy àndalaat war nañ leen xool bu baax te bu fekkee dañuy jéem a góorgóorlu di topp yàlla képp ku ñuy àndal rek ñu jéem laa xëcc ci loolu nga nekk ndax ëllëg yowmal xiyaam da nga yaakaar ne soo demee yàlla danaan ko e diw kaay dugg safara yow kaay dugg àjjana ndax yaa daan muur yaa daan def lu baax abadan yàlla dina ne la yaa daan ànd ak moom yaa ko daan gis muy def di def di def te daawoo ko tere jéemoo ko woon xëcc ci li nga nekk moo tax def kese te woowoo ci doomu aadama yi taxul nga mucc ëllëg yowmal xiyaam yàlla dafa mës a yebal benn malaaka ci benn dëkk ne ko na leen alal malaaka bi bi mu ñëwee ba ci dëkk bi mu gis fa benn góor bu baax jaamukatu yàlla malaaka bi delluwaat ci yàlla ne ko yàlla dëkk ba de danga ne ñaa alal ñépp bu ma bàyyi kenn waaye de dama ci jaaxal am na fa góor boo xam ne de kooku sa nit la jaamukatu yàlla la de ndax ci lay bokk yàlla ne ko bala ngaa alak waa dëkk ba alak ko ba pare door a alak waa dëkk bi malaaka mi ne yàlla lu tax mu ne ko parce que kanamam musta ñuul ci place buñ may moyee day romb nit ñi di ñu di ma moy du ko sax yëgal yaramam du ko sax yëgal yaramam moo tax njëkku koo alag ba pare moo tax tamit ëllëg ñu naan la waqi fuuhum innahum mas'ulun dañ koy jàng ci alquran waajur boo xamante ne bii mi ngi baax di góorgóorlu di julli yam ci biir këram waaye say doom nga bàyyi leen ñuy sol yu bon di paraj paraj ci mbedd mi di def di mooy yàlla ay ah ay xale lañ rek te yow yaa ngi toog ci biir kër gi di jaamu yàlla sa kemtalaay kàttan ëllëg yowmal xiyaam nga bëgg a ñëw dugg biir àjjana wàcc fa njaboot gi yàlla na déedéet njaboot gi ñoo lay poñe ne papa wala yàlla kii suñu bàpp la woon wala kii suñu yaay la woon mi ngi doon def waaye daf ñoo bàyyi woon ñu nekk ci lu ñu neex bu ko defee yàlla jël sa tuyaaba ya nga amoon a tas néew séddale ko njaboot gi lam leen jox du leen doy pour ñu dugg àjjana li la dese du la doy pour nga dugg àjjana mu jël leen yéen ñëpp xëpp sa fara wala yaadu billah kon ñu nekk ci lu baax kese doyul il faut ñuy jéem a woo jaam yi il faut ñuy jéem a woo suñu mbokk yeeg suñu xarit yeeg suñu àndandoo yi ci loolu nga xamante ne bii loolu lañ nekk kon sëru na nga fexe ba utal ko àndandoo bu baax na nga fexe it ba tàmmal sa bopp di tudd yàlla ndax bokk na ci li nga xamante ne bii day dëgëral buum gi dox sa digganteeg sa borom day dëgëral sa digganteeg sa borom waaye tamit day tax seytaane sori la bëri looy tudd buur bi subhanahu wa taala te bëri na ñaan booy gis ci téere sunna yi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bala moo doon def nangam ñaan bii lay ñaan comme ni ma ko waxee woon sànq rek yàlla nee na bàyyi mu ci téere bi dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp la ñu jàngal booy dugg ci wanag am na looy wax soo génnee am na looy wax ñaata nit lañu gis lu leen dal ci wanag la leen dalee nga dugg rek seytaane mbéj la sa kanam wëlbatiku bari na ñu ngi dal ci wanag parce que dangaa dugg tam waxoo li la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal soo génnee am na looy wax sooy dugg sa biir kër am na looy wax sooy génn sa biir kër am na looy wax bàyyiwul dara ba ci sooy joteeg sa soxna sax yonente alayhi salaatu wasalaam jàngal na la li nga xamante ne bi loolu nga fa war a wax te loolu yaa ngi koy wax di ci am say tuyaaba waaye tamit di am ay njëriñu àdduna yoo xamante ne bii loolu la lay jural te tàmm googu ngay tàmmal sa bopp tudd buur bi subhanahu wa taala ëllëg ci la la yàlla di baaxee ba sooy dee salaamiñ loolu la tàmmoon bi ngay dund sooy dee nga deewaale ak baatu laa ilaha illa allah ba nga daan wax wala subhanallah ba nga tàmmoon di wax wala laa hawla wala quwata illa billah ba nga tàmmoon di wax am na benn ndaysaan noddukat boo xamante ne bii bi muy dee fekk woo nañ docteur bi feebar na ba sonn ñu woo docteur bi docteur bi bi mu ñëwee fekk kiiwatul yëngatootul mu teg kii écouteur bi ci nopp yi pour xool ba xam xol bi mi ngi kiiwam déet mi ngi yëngatoom déet dafa ne tegg rek dégg dégg di dégg ay nodd xol bi mi ngi dem deewagul mais mi ngi dégg ay nodd mu ne teg dégg nodd gi ba nodd gi daaneel waa ji yëngatu xol bi arrêté waa ji yëngatootu imagine koo xam ne yaa ngi dee sa xol di noddu kon kooku lim doon def daf ko doon def ngir sàkku ngërëmal buur waaye def ko woon ngir ñu naan ko bilaalu jàkka ji la def ko woon ngir xëccoo place ci jàkka ji ñaata nit la ñuy jàng seen histoire ñu naan bi ñuy dee dañoo jàng alquran bi ñuy dee seen baaraam mi ngi yëkkatiku ñuy wax laa ilaha illallah ci ay xale ak ci ay mag waaye tamit ñaata nit la ñuy dégg seen histoire ñu naan bi ñuy dee dañ doon saraxolle ndax moom lañ tàmmoon bi ñuy dee ñi doon way musique ndax loolu lañ defoon seen bànneexu bakkan moom moo nekkoon moom lañ bëggoon ci seen xol bi ñuy dee dañ doon saaga ndax loolu lañ defoon ci seen xol loolu lañ bëggoon ci seen xol bëri na bëri na tey boo laajee ku bëri lu muy teewee ay nit tey docteurs yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci hôpitaux yi laaj leen cas yu mel noonu dina bëri luñ la ciy wax ay nit yoo xamante ne bii bi ñuy dee liñu wax ji ñu deewaalee te yeneen ci bat alayhi salaatu wasalaam nee na li nga deewaalee loolu ngay dekkiwaalee ëllëg yow mal xiyaam yaa ngi dee di saraxolle ëllëg yow mal xiyaam yow bis bi nga xamante ne bii yàlla nee na yow man yajaalul wildaanu shiba xale bi nga xamante ne bii dafa juddu jot ko gis leeru àdduna dee nee na ëllëg yowmal xiyaam lii boobu dafay bi jaaw ndax tiit gi mu tiit tiit gi mu tiit ki nga xamante ne bii bala moo génn ci àdduna sax ci biiru yaayam loru na kooku ëllëg yowmal xiyaam day tiit ba bi jaaw la nga am ci ay tànk yaayam yaakaar ne ëllëg yàlla dina ko dugal safara koo xam ne defawul dara génnoo sax àdduna ba di fa def mooy yàlla kooku di tiit yow mi génn sa bàmmeel génnaale ay way musique yow mi génn sa bàmmeel génnaale ay saaga yow mi génn sa bàmmeel génnaale ay taasu ak saraxolle loolu gis nañ ko fi ñaata ñaata waykat lañ dégg ñu ne fi ñu doon wayee foofu lañ deewee ñaata waykat fii ci Sénégal lañ dégg ñoo xamante ne bi ci pëjam bi ñu nekkoon foofu lañ amee arrêt cardiaque ñëw bu leen hôpital ñu dee wala ay ñoo xam ne ci studio bi ñu nekkoon di animé lan lañ doon animé yàlla wala yeneen bi déedéet seytaane noonu lañ deewee ëllëg yow maa xiyaam nga dekk di jabatu maa ngi leen di may dédicace diw maa ngi leen di may dédicace diw subhanallah ba safara waaye tamit dara gënu la neex nga dekk yow maa xiyaam di jàng alquran ba àjjana di tudd yàlla ba àjjana ci bis boo xamante ne bi ñëpp dañuy tiit yow yaa ngi jóg ànd ak sa tudd buur bi subhanahu wa taala kon mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax defaraat suñu diggante ak suñu borom ñu góorgóorlu bu baax xam ne àdduna bii am na ñu fi nekk ndooloon démb tey nekkuñu fi gisatuñ leen te noonu est-ce que dañ ñoo gën moo tax yàlla jëlee leen fi wala dañ ñoo yées moo tax yàlla jëlee leen fi déedéet seen bis moo jot yàlla yóbbu leen ñun tamit suñu bis mi ngi ñëw yàlla yóbbuñu te bu ñuy yóbbu comme ni ma ko waxee woon sànq li ñuy jëf rek rek rek moom lañ fay fekk loolu moo ñu fa mën a dimbali suñu jëf ju baax moo ñu fa mën a dimbali waaye tamit suñu jëf ju bon moo moo ñu fay wettali ëllëg wettali woo xamante ne bii kenn ñaanu ko yàlla kon ñu góorgóorlu tuub dellu ci buur bi subhanahu wa taala rawatina ñun jigéen ñi comme ni ma ko waxee woon ñun ñoo war a gën a delloo njukkal islaam ñun ñoo war a gën a mën a takku ngir jaamu yàlla waaye tamit ñoo war a gën a mën a takku ngir doomu aadama yépp jub tegu ci yoon bi ndax ñun ñooy société bi ñooy defar société bi kon ñu góorgóorlu ci loolu ma ciy ñaax sama bopp bu baax a baax di leen ci ñaax lii lañ leen fi indiloon ci tënk lu ci jub ñu xam ne ci buur bi subhanahu wa taala la lu ci dëng ci man la ak seytaane di ko jéggalu buur bi subhanahu wa taala di leen ko jéggalu aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
Thank you.